dawalkatu charrette yi nekk Touba am njàqare ndax benn arrêté bu kilifa yi jël xañ leen tali bi ñoom nag jàpp na nañu ni sax nag loolee bu dee dëgg la ndax accident yi bare na dal leen war a wutal ay mesures d'accompagnement ba du gàllankoor leen seen liggéey moo waral nu ñëw si altine gi toogaanu mairie bu Touba ngir nag ñaxtu Ousmane Sall di njiitu fédération bu mag bi nekk si Touba. parce que foofu autoroute bi fi la wàcce kenn ku ne xam na ni oto ya bari nañ fi trop te commissaire xamle na ni yi fi am bu ko wul. moom moo ko def kon reconnaître nañ loolu mu wax ndax dëgg la ndax sécurité lay liggéey te lépp luy sécurité ci moom la ne ànd nañ ceeg moom mais bi lu loolu amee danoo def délégation ñëw fii waxtaan ak suñ commission waxtaan ak ñi jiite commission muy muy Birane Gaye pour ñu mën ñoo wutal yoon yu ñuy jaar mais boobaak léegi mun ñoo fexe ba am yoon yu ni jaar te kii war a appliquer moom démarré na te muñal nañu un mois quinze jours yoo xam ne muñal nañu ko ñu jaar ci tëli bi léegi nag dafa jot ñu wutal ñu yoon yu ñu jaar sinon ñu wax ñu lan lañ bëgg. ñoom ñii doon sàkku waxtaan ak maire bi mel na nu am na nu gain de cause ndaxte maire bi donte sax mi woon si yeneen activité dafa mujj teg lépp suuf daw si ñëw si maire bi daar daar am ak ñoom réunion d'urgence bi nu génnee si biir lal boobu Abdou Lahad Ka maire de Touba dalal seen xel. ngi leen di xamal ne bi ñu jëlee mesure dañ koo booleeg mesure de accompagnement bi ñu ne dañ tere nañ leen tali bi wutal nañ leen solution boo xam ne dañuy wax ne mbedd mi nga xam ne moo nekk moo moo ko fare gànnaar. nga xam ne jannatu maxwaa bi la jël ba mu jeex boobu danañ ko defar mbedd mi nga xam ne moo ko fare Saalum nga xam ne ci jann ci Touba Njaareem la jaar donc Daaru Minam la jeexal dem Touba Njaareem ñaari mbedd yooyu danañ ko defar ba ngeen am ba ngeen am mën a dem ak ñëw te dootu leen tegu ci tali bi waaye da am dem fi ngeen bëgg a dem di leen ñaax rek ci lenn da ngeen di dawal sare ci dafa obligatoire ci quartier yi ngeen di dugg quartier gone yi ak jigéen ñi ak xale yi ñu ngi fi di daw di génn moto yi di daw di génn gis ngeen accident mortel yi ci moto yoo xam ne moto mooy daw ba dal ci sareet faatu bari ki démb rek ci famille sama famille man am na ci koo xam ne sareet moto la yor dafa daw ba dajee kap sareet bolonkaar bee dal ci dënd bi mun foofu la yem mu faatu loolu aussi ngeen di ko sóor ci yéen ñi nga xam ne yéen ay daw te kata joo yi nga xam ne mairie bi woo joxoon na leen ko ak numéro yi ngeen di ko takk bu guddee ngeen di ko monter ngeen ko bu leen séenee ku leen teg lumière bu fekkee mu am katajoo dana xam ne lee dara la mu mën a wàññi bu fekkee ku war a taxaw la mu taxaw bu fekkee ne ku lu ku war a wàññi la mu wàññi kon nag ñu ngi leen di. waaye nag bokk na si yeneen jàqare yu borom charrette yi teg si kaw taabal bi ba moo waral ñu def journée sans travail mooy xeetu moto yi di tricycle nekk si biir mairie bu Touba danoo jàpp ni dañ koo bëgg indi remplacer ko ak seen charrette yi boobee question maire bi tamit indi na si leexal maanaam xëy na am na yeneen jumtukaay yu ñu bëgg yu dugg ci marché bi mais ñun ñu génne ñu marché bi ñu ngi fiy bëgg a ñëw. am na ci yu ñëw ba pare loolu nag bu amee est-ce que du la. te loolu bu fekkee ñoom ñoo war a dugg ci marché bi pour génne ñu ñun dañoo bëgg a génne marché bi. xam nga xam nga nañu nañu gëm sunu borom nañu gëm yàlla te yaakaar ko te wóolu seexul xadim tricycle kenn du seen yor dara seen dara ñu ne mu nga ne lii buy dox damay am jafe-jafe tricycle yi président de la république Macky Sall moo ko may collectivité locale yi collectivité locale yi Touba am na ci dix dix man dañu koy joxe ci lii c'est pour nit ñoo xam ne poste poste de santé yi dèjà laa ko programmé li nga xam ne l'ensemble des postes de santé yi nekk ci dëkk bi nga xam ne dañu koy chargé du du yorul gasoil da nga koy chargé ci courant moom mën a daw 80 kilomètres poste de santé bu nekk mën koo yor bu guddee ba 22 heures 23 heures nga am malaat boo xam ne xamoo noo koy def nga mën ko cee teg wala nit ñëw ne la damaa am malade nga mën ko cee teg indi ko ci poste de santé bi wala poste de santé bi mën koo jël dox ci quelques mi quelques kilomètres wala quelques euh, déplacé ci loo xam ne nii du indi jafe-jafe. jamono ji bi nu ubbee Ila Touba bi ba léegi accident yi dafa lëmbe si biir Touba li ko waral mooy charrette di daw si kaw tali bi di jàmmarloo ak oto yi moo waral commissaire central bu Touba jëloon décision ànd seeg service compétent yi ngir charrette yi wàcc tali bi di jaar si ñaari pegg yi si yenn xale yu nu jàpp ni oto yi foofee dañu gën a fréquenté. Thank you.